ndigalul xalif seneral de Mouride Cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadul Basir Serigne Ahmadou Moukhtar Mbacké xalif Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim ak mboolem njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha Serigne Abdourahmane Mbacké xalif Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma ak mboolem ay rakam ci ndigal ak teewaay ak kilifteefu Serigne Moustapha Mbacké Mohamed ak rakkam yu tedd yii di sëriñ Baara Mbacke Mouhamed ak seex Mouhamadul Fadal Mbacke ak mboolem seex yi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki taalibe yi noo ngi leen di jottali nuyoo seex Mouhamadul nuy ñaan sunu borom te sàkku ñépp jaayante loolu ñaan sunu borom yàggal ko ci sunu kanam. seex Moustapha nee na. gàmm gi insha allahu fii fi Taif la ko fas yéene defee nee na itam noonu la ko fas yéene àndal nee na sëñ Baara mi ngi feddliwaat ndigal li mu joxoon ahibaalu xadim li nusrati diina xawim ci taxawu bis bi ak bisu maggal dara xudus nee na ndigalal fet doxal bis bi nee na fedd it mi ngi koy feddliwaat te fas sa yéene itam fii la koy defee te noonu la koy àndal nee na nag mi ngi ciy woon ak képp ku koy déglu ñëpp mi ngi woote ci barab bii nan ko fekk fii defe ko fi ngir jëmmi sëñ tubaa bi nga xam ne fonkoon na bis bi lool defe ko fii tam ci sëriñ Mouhamed mu tedd mii ndax kat gàmm li ci suñu borom digee bu yemoon ci li sëñ Touba wax ne bi xis diyaadul minati rek baat boobu rek dooy na doy na sëkk ci gàmm si dolli ko koy xéwal ba faw te is diyaatu al minnatu boo ko toppoon lu sori la ndax sëñ Touba bi muy wax ak laxasaayam ci suñ borom daf ne axdimuhu ilaa duxulil janna daaril xaraari wal munaa daa ne wal minna àjjana xéwal yi ne ci àjjana benn gënu gënu ca kaw te te ndeke kon gàmm dañoo cof ca xéwali àjjana indi ko fi ñu dinu ko fi jox te nekk ci kaw adduna mooy daaril xaraay wal mun a wal min na min na xéwal la goo xam ne àjjana la nekk te sëñ Tuubaa nag nee na boo dee gàmm bi xis di yaadul min na dañ lay dolli min na ci gàmm googu kon sëñ bi nee na mi ngi bëgg ñu ànd ko moom defe ko ci pàkk bu tedd bi nga xam ne eh, pàkk yi gën a kawe ci pàkki suñu borom yi la ngir jëmi Cheikh Moussa ak jëmi sëñ Tuubaa kon nee mi ngi ci woo ñëpp nee na na ñëpp fonkaat tani bi fonkal ko suñu ñoñ kuy ñëw na na nga fonk ñëw gi te te te ñu daan ñëwit it lu mu gën a yokk moo ko ci gënal lu lu mbooloo mi gën a yokk moo ko ci gënal waaye tëni bi moom bëggut a teg bët kenn ci kaw ngay sol leneen lu lu mbub bi. Serigne Abdoulaye di wax ne mi ngi ciy woo képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah di wax ne section bii nga xam ne mooy section bu Taïf nga xam ne yàlla xaasale nanu ci baaxub sëriñ bi nu di ko amale fi nun Serigne Abdoulaye nee na loolee. mi ngi ci xamal section bu tey bépp ne leen lépp loo xam ne ñi ngi koy woote ci gàmm gi te sëriñ bi bëgg ko ci diggante teeral ak teeru lépp lu maa doon sëriñ Abdoulaye nee na loole section Taïf ñoo ca war a jiitu. muy sëñ bay sëñ Mbacke Gueye ngàcc mu jox ko ndigal ci mu woote gàmm gii fu ab seex nekk ak mbooleem dongay laxasaay yi ak mbooleem ansaaru diin. ak diaspora bi ak képp ku aju ci moom ak képp ku bëgg lu baax ak foo mën a nekk. moo di daayira Ahibaahil Xadim bi ko sëriñ bi sos dafa waxoon ne yaari ndigal rek laa leen di jox ndigalal sëñ Touba bi mu liggéeyalee boromam ba sun borom wàccee ko mu dëkk mu dëkkaale ak boromam fii fi Touba ba ko ñaareel mooy guddi yonent bi sallallahu taala alayhi wa nga xam ne lu ne sëñ Touba def na ko ci mu masaan tëju. lu masaan am bu weer wi teroo mbég ma feeñ lu am joxe ko ngir yonent bi kon Baye Sëñ Mbàkke nee na sëriñ bi mi ngi woo ñëpp ku bokk ci juróomi bànqaas yi nga xam ne moo aju ay bàyyil xadim ak foo mën a nekk ak ku jaayanteeg moom mi ngi lay woo su bis baa nu teew fii defee ko nan ko daan defee te kenn bañ a manqué te it lii mënu santoon muy col gu weex gii ak kaala gi nga xam ne moom lay àndal nee na képp ku ànd ak moom te jaayanteeg moom te digal na la lépp lu mu wooteeti mu jëm ci seexul jëm ci lislaam na nga ànd ak loolee boo ñëw da nga ko sol. soxna maam bu sa mbaake mu jëm ci woote bi nga xam ne mooy woote bi bisu mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam te Cheikh Moustapha Mbàkke Mouhamed di ko woote fii ci Taïf teñ baaxoo di ko def at mu jot daayira Ahibaawul Xaddiim ak mboolem rek groupement bi nga xam ne moo aju ci daayira bi yëpp sëriñ bi di leen woo at mu jot ci Taïf Mbàkke gi ñu fas màggal guddig nabi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu yewee itam noonu nga xam ne noonu la sëriñ bi bëggee ñu màggale noonu bis bi guddi gi yendoo ko fanaane ko loolu itam nee na mi ngi koy bàyyiloo xel mbooloo mi nga xam ne ñooy ñëw ci bis bi ñëpp te loola dara jiituwu ci jàng alxuraanul karim ak jàng xasida ak salaatu ala nabi ak istixfaar lu ci waay man ñi itam bu baax mbooloo mi ci bernde yi ndax gàmm ku ne gàmm ne bernde bokk yi bis baa ngi noonu gàmmeek tayif la fii la sëriñ bi woote ci buntu barab bu way juróom wu tedd wii di sunu sang ba sëriñ Mbàkke soxna loo yàlla na ko yàlla dolli ay ngërëm ak i leer ci barsàq ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk war a am pësteef te jàppale ko te yeesal ga mu yeesal mi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal ngërëmul yàlla ak pajuk aajo ci barkeb ki nuy liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba barkeb ka muy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nun ñëpp nag ñu ngi ànd di ñaan sëñ Moustapha Mohamed borom yokk aw fanam ak wéram ba mu àggale ay mébétam ak mboolem rakkam yi ak seex yi ak taalibe yi salaamu aleykum wa rahmatullahi wa